8 juillet euh, bu ñu nomee dat boobu euh, lan lay génne ci yow. le 28 juillet ah xanaa salfaañe salfaatee salfaañeeti nañu yoon le 28 juillet gàcceel nañ Sénégal le 28 juillet njeexital la ci xoqatal ak xeex boo xam ne. ak heurtel boo xam ne ñu ngi ko teg ci ku ñuy wax président Ousmane Sonko nga xam ne benn ayib lañ ko mën a toppee mooy bëgg réewam mu jaral ko lu ne ginnaaw bañ ko heurtelee 2016 ba léegi xëy na le 28 nag la ñu yegg ca njombaxtal la def li ñuy wax l'irréparable wala maanaam lu kenn yaakaarul woon ne dinañ fa yegg euh, loolu nag moo indi tey li ñu nekk di dund ci réew mi mooy jàpp gi ñuy jàpp président Ousmane Sonko. te amul fenn fu ñu ko teg. mu mel ni dafay euh, symboliser la fin d'un cycle judiciaire ñu incarcéré ko dans le cadre euh, ñu teg ko ay daan ci dossier Adji Sarr dans le cadre de l'affaire Sweet Beauté dossier boobu dama ci prison le 28 juillet ñu arrêté ko euh, d'abord le prétexte euh, c'est une altercation avec euh, une gendarme euh, ñu ne voie de fait euh, vol de téléphone portable mais le lendemain procureur def communication gàll ci yeneen chef d'inculpation euh, yoo xam ne dafa jëm ci wàllu appel à l'insurrection ak euh, ay chef d'inculpation yoo xam ne yu diis la yoo xam ne euh, dinañu ko àtte ci jëppaandaw la devant la chambre criminelle Ousmane ko def un post Facebook mu ne li ma dal nii en en somme li ma dal nii yëpp bëgg réew mi ak engagement bi ma engagé wu aux côtés du peuple moom moo ma ko moom moo ma ko teg ñu bari njortoon ne euh, xëy na euh, situation bi dina jaxasoo mais il y pas eu de trouble mu mel ni situation bi ñu nemmeeku woon en mars 2021 nemmeeku ko le jour du verdict du procès Ousmane Sonko Adji Sarr nemmeewuñu ko au mois de juillet yow ci sa gis-gis lan moo indi différence de réaction bi entre ces trois situations tout d'abord nekkul ne loo xam ne day marquer la fin d'un cycle judiciaire mais fësal day màndargaal une longue cabale politico-judiciaire envers le chef de l'opposition qui est le président Ousmane Sonko parce que mbir mi jeexagul te waajagul bay jeex ndax président Ousmane Sonko ginnaaw ba ñu ko rajee ba léegi action bu ñu mën a poser c'est comment faire de sorte que kii ak projet ak parti wam du ñu yegsi ci seen bëgg-bëgg mooy jot ci réew mi soppi réew mi bali ñëpp bokk ñëpp jot ci ndax ñoom dañoo bëgg a wéy téye réew mi noot askan wi li ñëpp bokk ñoom ñu toog ci moo tax nag mu jaral leen lu ne te xamoon na ne saa su ñuy gën a jege échéance électorale maanaam fin de règne bu système bi parce que li muy màndargaal li muy marqué dëgg dëgg dëgg mooy fin de cycle système bi nga xam ne mooy le principal goulot d'étranglement du Sénégal moo téye Sénégal ba Sénégal mënul génn ci guute gi mu nekk nu ñuy gën a jegee nërmeelug système bi ñun xamoon nañ ne système bi dina walbatiku xeex ñu lu mu mën ngir loolu bañ a ant moo tax dara bettuñu ci encore une fois